dañ lay signé aussi exclusivité que ne programme yi ngay génn yëpp ci émission dafa war a nekk à TFM parce que euh, déontologie mayul la ngay génn émission TFM di génn émission 2S wala Sen TV même man sama émission bu nekkee externe la man maa koy def indil leen ko mais euh, éthique mayu ma may jël koo xam ne mi ngi génn Sen TV di ko indi TFM donc TFM nag bu ko proposé benn émission par exemple comme à l'époque euh, yeewu leen mun na ko def bu ko proposé beneen mun na ko def mais comme mairie bay mi ngi def high ba pare mi ngi génn dans euh, dans yeewu leen mais tey mairie bay mënul génn RTS wala feneen su ko euh, soxla woon soit day dem. wala mu moo jiitu seen TV bi. waaw mais moom.

Euh, c'est pas parce que TFM ko non Le contrat bu ma signé TFM la. donc TFM mënu ma imposer une animatrice bi nga jël animatrice bi la jël. Mm-hmm. tu vois ça na bi muy dem C'est bien après le problème qu'il avait à TFM. Mm-hmm. tu vois donc euh, ça n'a rien à voir. 52 morceaux pour convaincre ci 52 semaines 52 singles 12 clips ñëpp dégg bu kenn yërëm waaye nañu suivre ku déglu dégg ci kàttanu yàlla